di contane ci wa COJER ci gëna ñaax aussi population bi ci rafetlu aussi sen euh, acte liñ def rafet na té dañ ko soxla dal heure bi dañ ko soxla heure bi ndax banque bi danaka amul amul dara nit tay bu soxla won deret bu ñëwé ci banque bi du am il faut que ay mbokam ñu ñoo mayé ñu soko mëna jox deret ji banque bi amul deret parce que dañoo gëjë a génn dañoo gëj a génn dañ daa génn presque wala ci semaine bi mën nañ génn ñaari yoon dem uti deret ñëw te loolu depuis pandémie bi bu mu amee ba léegi loolu dafa xaw a wàññeeku ndax comme dañoo tere woon ay rassemblement yooyu dafa wàññeeku tey bëgg nañ am 100 poche bu ko yàlla nangoo toll nii ñu ngi am 34 poche fanweer ak ñeent dañ amagum fi mu toll nii ah, ñàkkum deret bi de mën naa wax ne mën naa faat euh, maladie mën naa faat maladie mën naa yokk tamit sama gis-gis bopp bi mu waroon a def mën na ko mën na gën a yàgg parce que bu fekkee ne amagul deret mënuñu ko bàyyi mu ñibbi këram te sampaluñ ko euh, deret ay poche waaw maa ngi ñaaxaat population Mbour képp koo xamante ne mën naa ñëw hôpital Grand Mbour maye mu ñëw maye

pour contribuer pour def suñu contribution c'est que nous souligner que la euh, banque de sang bu Mbour bi dafa nekk en manquement C'est la ñu te dañuy gis suñuy statut aussi euh, ay camarades de demander de d'aide par rapport à des parents qui ont ne ni dañu feebar si lañ ne kon ñun comme ay jigéen lañu te ay ndaw lañu war nañ mën jël initiative bi donner euh, le bon exemple pour que les jeunes yi mën def comme comme ñun

wala sa jegeñaale boo xamante ne ni feebar na te li ko war a mën a sauver rek mooy que euh, deretu moro moromam moo ko mën a jénn ci situation yi mu nekk donc képp kuy euh, kuy doomu aadama rek war nga heure bu bu la ko sa jot maye rek nga dem hôpital sax def ko fa sans pour autant nga xaar organisation wala wala yu ni mel mais war nga mën a sol sa dàll dem hôpital joxe joxe fa sa sa sa deret pour dimbali sauver euh, des vies waaw. waaw loolu mooy suñu yéene ndax euh, def nañ ko tey vraiment jeunesse bi ñëw aussi surtout la jeunesse féminine ñëw répondre ak C'est une invitation jógee ci 16 euh, communes yi nga xamante ñoo nekk ci département de Mbour bi ñu am ci satisfaction organiser ko tey mu première édition mu réussir. donc Inch'Allah, bëgg nañ chaque six mois ou bien chaque trois mois ñuy def activité yu yu parce que dafa bokk suñu programme. suñu programme mooy euh, euh, si citoyenneté daal ñu gën ci ñu gën ci euh, ñu jox ko gëdd daal ni mu ni mu ni mu waxee parce que dañuy faral di ñu kii ne ñu politique politicienne ñun nag dañu fi bëgg a jëlee loolu def politique citoyenne politique sociale loolu daal lañu la ñu bëgg a def